अच्छा ये कौन taalibe yi rawatina ak waa xayra ndax ku ne xayra sa xel dem sëñ Mor bu sa jëng wala sa xel dem sëñ Fallou sëñ Fallou nag moom li mu liggéey Sénégal ñëpp xam nañ ko rawatina yéen waa xayra ndax xayra moom sëñ Mor bu sa lañ ciy teg ñu am xeexoo bu mag nag ba mu jublu buy nag 20 mars di réforme constitution président Macky Sall initié ko indi ko ci réew mii am ñoo xam ne dañoo taxaw di ci wax ay kaddu yoo xam ne ak loolu amul ñu ñëw fës leen ni ko leeral lii la ñuy wax journal officiel mi ngi nii. képp ko xam ne nga wala nga am rak ñu jang wala mag jang wala seut bu jang bu demee ci internet da ko gis bu demee bu demee fo bu tapé journal officiel lay tapé bu bindé journal officiel lay tapé numéro 306 du 29 février 2016 mu ñu ko journal officiel yi nga xam ne fukki poñ ak juroom yi nga xam ne moom la ci Macky Sall indi may ci walu nak jigen ñi ngeen am ci cër bu mat sak ndax jigen dañ leen bëgg ginaawal te yalla lañu njëkk teg ci kanam ndax dina ji l'islam sax jigen mo ci njëkk a su suñu di yoonu mouride soxna jaara Buso lim liggey am solo nga xamne senegal kenn mu dem baye jigen ngeen am cër bu am solo ci suñu réew mi lii nag ñu bëgg leral leen ko bam leer seen bopp nga xamne day baax am borom kër kenn yor ko wala mu bon ñepp bokk ko yalla ñu yalla musal te yeen ñi jigen ñu baax ngeen kon nak ñuy wax na fukki poñ ak juroom yi nga xamne mo ci nek amna ci bo xamne moy mooy ba ku ci ne ku ci ne ci yéen am yelleef ak àqam ci booba enveloppe nga jël dugal ko ci jël bi dugal ci enveloppe ba boo ci dugalee nag doo ko kole boo ko kole day yàqu doo ko lem boo ko lemee day yàqu boo boolee ñaar yëpp dugal ci biir baaxul benn bi ngay dugal rek jël enveloppe ba daal koy tëj noonu dugal ko ca kees ga su ko defee woote nga wii bokk nga ci Sénégal jëm kanam bëgg nga ci Sénégal jëm kanam bëgg nga Touba jëm kanam jigéen may nga ko cëram ak gëddaam ah, a wax jëlalu ma dem ndax vote droit citoyen citoyen ba dafa am droit ni ma war a amee carte d'identité bu feebaree war a faju doomam war a jàng noonu la war a dem vote yi tànn nag bu ko neex ba ko neex nag mooy bi gën bi gën mooy wii ngeen wax ko jëm kanam jàppale du ñu jox ay mbale ne ba ci dëkk bi nga amee lamp laa ca Touba fa ko Allah ma sha Allah nga jàppale ñu liggéey ndax dinañu dañ lay jàppale ca yàlla tax ak Serigne Touba ak sëñ Modou bu sekkeen min la duppee dama bëgg nga jàppale nu wiiw wiiw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bi ñu julee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi lool ci wér ma bëgg yéen ñëpp ngeen waxaat ko beneen bi ci des mooy suñ tuddee xayra ñun ñëpp. dañuy dellu ci seex mu Mouhamadou Moustapha Fallilou moom mi nga xam ne moo ko sanc ca kenn ku nekk ci yéen ëmpulewut li ma seq ak seex mu Mouhamadou Moustapha Fallilou sama tànk bu njëkk wala samay jéegu yu njëkk ma njëkk ko taxaw ci pencum xaayara di wax kon yaakaar naa ne eh, delloo buum ga ca boy boy ba kon ñu ngi dellu di sant sunu kilifa ga ñu ngi dellu di sant sunu sëriñ ba ñu ngi dellu di sant sunu waajur go sëñ Cheikh Mamadou Moussa Fall di leen wax ne yàlla nañu yàlla taas ci barkeem di leen wax ne yàlla yàlla yokk ay leeram fa mu di leen wax ne lii soxna si wax léegi wax la joo xam ne du leer naññ la dama yaakaar ne kenn mënut ndax sa bopp. ci nax len moy nax sama bari nañu ba noppi kon japp na ne suma ñëkke jëg di taxaw di wax yalla dimbali ma ba ma bokk bok bokk gi ma bokkal xaayara bokk Cheikh Mamadou Moussa Falilou ma njëkk tambalé ci yeen di wax ak yeen yaakar na ne lepp luñ ci mëna am ci yeen lay wat ndax yeen yéré borom ndax yeen yeen la ko bokkal bala may rot di soti fenen ma rot soti fi ba kon ñi fi jaar yaakaar duñ bok ndax nit ko xamni bo boo seen kërëm bo waxo seen kërëm bo waxo jëm ci kërëm yaakaar naa ne booy tàmbali nak nax doo kon yaakaar naa ne li ñu fas def and ak président Macky Sall fas am ay liggéey yo xam war nañ ko indi ci dëkk bi ñun nak dafa am luñu gëm nit ñi aleeg ngeen nap di leen jox. ngeen wan leen lu ñuy nappee fexe ba ngeen mën a am ay mbir yoo xam ne da ngeen ci mën a sukkandiku du liggéey ñu nag dundi kenn duñ wax kenn lu mënul lépp loo xam ne nii dem nañ ba lijjanti ko danañ ko indi teg ko ci seen i loxo waaye duñ toog fii dana danañ leen may lii wala danañ leen jox lii li ci daal rawati bët loolu laa bëgg wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man sëñ Modou Mbacké Bara Dolly maa leen di nuyu di leen wax ne dëkk bii di dëkkub Serigne Touba yéen taalibi Serigne Touba yi yéen taalibi Serigne Touba yi yéen taalibi Serigne Touba yi yéen taalibi Serigne Touba yi yéen taalibi Serigne Touba yi yéen taalibi Serigne Touba yi maa ngi leen di yëgal ne Serigne Touba rek a fi de. Serigne Touba rek fi ne kon ñaanal leen sëñ Sidi Makhtar mu yàgg fi lool ci wér sëñ Sidi Makhtar yàlla na fi yàgg ci wér na leen leer ne amuñu ku dul Serigne Touba gëmuñu ku dul Serigne Touba soppuñu ku dul fii danaa fi ñëwaat waxtaan ak yéen ndax ñun Serigne Touba rekk ñu ñor dëkk bi rek ñu ñor. kenn ñun ñu ko du Serigne Touba ma bëgg ñun ñëpp ñu ànd ci ndigal ñu ànd ci jubal ci Serigne Touba tax lii danaa fi dellusiwaat wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. на король. Он почему опять как-то поберет. Думаю, что это не пустую. Ngir andal, aku ngir andal, andal, aku andal, aku ngir andal. Te di la xamal ne la boye boo xam naa ne yéen lan àndal tey yéen leen àllal suba tey it dañuy ànd ak yéen ba géej gi fer ndax gisuñu fi lu leen tane kon yéen la àndal ñun daal liñ bëgg lenn rek la ku nu jàppale rek ci suñ koñ bii ñu suqaliku fas yéene ànd ak yéen ba keroog Macky Sall di vatewaat 2019 di jëlaat présidentielle boo nu jàppalee bu soobee yàlla ak yonent bi ak sa barke mam li nga bëgg di nga fi am dañuy ñaan rek fas yéene ànd ak yow li nga bëgg ñu necc ci guddi ak bëccëg ñu ni li ñu bëgg nga jappalé ni ci lool lu ñu soxali rek lañ soxla ku ñu jappalé rek lañ bëgg ndax bu ngeen ñu jappalé rek ñu dem té ñu nit yeen lañ fi togal kon yeen ni da ngeen ñu jappalé ni jappalé leen té bu soobé señ Fallou mbacké li ngeen bëgg di ngeen ko am bu soobé yalla wa salaam bismillah mbolo mi sa wax rafet na lor ñu sa deglu Serigne Modou mu gannaaw nak mi ngeen suñu borom dogale ngi and ak yeen ba ñew fi am liggey bo xam nañ ko sumb fas yéen ko and ak yeen soxna si gram si moy fon wax legi mu wax ko deg nañ lepp baye nañ ko xel nañ def suñu kam katan ndax yalla dafa dogal ñun ñi ñep ay doomi soxna lañ te même budul politique da am lo xamne ne lañ seq sañ ngeen am yitte ñu wax ñu ko ñu def ci luñ man rawatina nag bi nga xam ne dañoo seq leneen loo xam ne mënuñ ko séddoo ndax politique bii li ñu ci dugal mooy liggéeyal Touba mu jëm kanam ñu teg ko ci kaw dëgg akuk taalibe ñun ci loolu rek lañ dox bokk ñoom ñeneen nga xam si dañuy def ak wax rek ñun incha allah nii laa mel nii laa mel jot a wax bu yàggee ñu xam na nga mel lool lool lool la. jërëjëf jërëjëf soxna dana ni dana neex dana yëngoo. sëñ Modou yegg si na dana neex dana yëngoo. Eh. dama bëgg ñun murid dañu baxo ba lañuy tambalé suñu wax ñu ñaanal señ Sidi makhtar mu yagg fi lool ci wër señ Sidi makhtar yalla na fi yagg ci wër di wax ni euh, soxna Digeen bala ñu lay nuyu di nuyu mbooloo mi euh, dañuy nuyu Baye Ndaw Mbaw ndaw mi moom mi nga xam ne mooy sa borom kër ca yaatal la ubbil la ba nga mën a dajale mbooloo mi mel nii kon ñu ngi tàmbali nuyu bi ci sa borom kër bala ñuy tàmbali di egsi ci yow euh, Serigne Touba defal nañu leneen lu dul politique bi. ca loolu ñu sëñ tubaa defal ci leneen lu dul politique leer nañu ba keroog ñuy faatu sëñ tubaa teral nañu ba faaw kon teral googu ñu sëriñ tubaa teral wërtu tax ñu koy jëndee lenn lii ñuy liggéey wala ñu di ko wër di ko liggéey bu fekkoon ne leneen da cee nekk leneen lu dul li nga xam ne moom la ku tedd ki sëriñ tubaa bëgg bu boobaa ak lu mën a jar ci àdduna du tax loolo ñu dugg ca kon war ngeen a xam ne li ñuy dox di ko liggéey wàññi ko di ko ànd ak président Macky Sall di ko def lépp l'islam bañu ko ak taalibi bañu ko li ñu ñor mooy réew mi tege ci yoon ndax réew mi bu tegul ci yoon a liggéey si biir keneen mën na koo yor di ci def lu ko neex du ko jëlee du ko neex di ko doxalee nu ko neex ca it keneen ëllëg mën na fee toog na fii ñaar fukki at wala fii ak ak dundam di mat du jëg ci réew mi di def lu ko neex ci kenn du ci man dara waaye président ñëpp xam na ne ci 1960 la ak léegi eggugut ci yenn at yi su wàññi koo wax ne lii nga xam ne moom la yoon wi santaane suñ ko watee muy ka bii li ci am mooy kenn du mën a toog lu ëpp fukki kon nit bu fekkee ne dem na ba toog ak yow wax ne waat na ci yàlla ne lépp lu mën a am ak diineem gën koo seetlu moo ko gënal nguur gi ndax nguur gi yàggut kooku du def loo xam ne nii dëppoowut ak diine kon mu bëgg ci gàttal am na fi ay kilifa yoo xam ne ni ñaanal nañ ko ñu ànd ak moom ñu ñaanal ko mu wax li muy wax ba leeral ko sëñ seex Bass wax ci kori kàddu sëñ bi ñu am lu wax lu leer nañ yi sëñ Tuubaa nag dafa am nu baaxoo waaye ñun daal li nga xam ne moom la ñuy wax mooy lii ñu nekk di dox lislaam bañu ko ak taalibe bañu ko li ñu ñor nag mooy fas yéene leen a ànd jàppale ko fas yéene ànd jàppale waa du gox bii di Touba Njaareem ki nga xam ne du ñun duñ diggaate de duñ leen wax ne dana def lii duñ wax ne danañ leen lebal lii duñ wax ne danañ leen jox lii waaye li nga xam ne moom lañ leen di wax lii ñu jëg bay dox ci suñu tànk yi lépp loo xam ne jëlee nañ ko ci danañ ko indi ba ci seen i loxo ngeen teg leen ko ci. jël 11 milliards def ko ci assainissement Touba bi def ci ay tali yu bees kër sañ Cheikh Mati léegi tali bi jaar di jëm ba kër am Amadou Mokhtar moo ko fa def tali bu bees ba jëm ba nga xam ne moo dem kër si Sidi moo ko fa def daaru réforme réforme référendum bi nga xam ne si mooy waaja am le 20 mars réforme boobu nag di 15 ci bépp anam nag dafa war a suqaliku dafa war a jëm kanam rawatina Touba sëñ Ablaye Ndiaye gis vision bu président Macky Sall def ci mu ànd moom ci loolu lii ma yor nii mooy journal officiel bi nga xam ne loolu mu ci ayib la képp am na fu ñu boo demee ci internet bi fu ñuy wax googul soo ko tapé décret 306 du 16 février 2006 da ngay gis décret 26 février 2006 da ngay gis bi muy 15 point président Macky Sall ak fay def am na ñoo xam ne nag dañoo ñëw di sos ak di wax loo xam ne si baaxul ak a ñaaw njort loolu nag yàlla. ak yonent bi nga xam si moo ci moo ko njëkk aaye ndax yonent bi mooy indi benn hadis ne ijtaniboo kasiran mina sanni inna ba'da sanni ismun na ngeen moytu njort ndax lu ëpp ci njort bàkkaar lay jur kon nañu rafet xel rafet njort te xam ne président Macky Sall ab julit la sëñ Modou Mbacké Badoul ak ñi mu àndal ay julit lañ ay taalibe lañ lépp loo xam ne day xeex diine wala mu koy delloo ginnaaw duñ ci ànd kon bu àndee ak moom dañoo war a xam ne si loolu lu baax la lu jëmale kanam Touba la lu jëmale kanam Sénégal la quinze points yooyu nag am na ñuy wax naan dañ cee def borom ñaari loolu amul tey amul suba li commencé point 1 ba point 15 boo ko liggéeyal doo ci am ñetteel bi ñu yàq li ñuy wax ne li ñuy wax avortement médicalisé koo xam ne yàlla daa dogal nga wan lor su la neexee mën nga ko yàq dara la ci fekk loolu amul ci 15 points yi képp koo def dañ lay tëj te am na yàqal yoo xam di gën a responsable Macky Sall xam ko muy xaysam ñu yàgg lool loolu la bëgg naa ngeen xam ko alaaji alaaji Macky Sall ni mu xamee ñëpp la xamee alaaji a Abdoulaye Ndiaye mi xaytama wóolale ma ku mu bàyyi xel la ndax jàmbaar la ku ma liggéey la léegi dafa guddi dañuy wax sëñ Modou Bara Dolly mu ñaan